Sénégal salaamaaleykum yéen ñi safoo di seetaan étoile TV Sénégal du tay ci diko ko wax mooy l'étoile du net c'est Sister Sia la présentatrice de votre euh, de votre cœur la présentatrice ki nga xamné mom moy dem di ànd ak chaîne étoile TV indi len li ngeen xamné mom ngeen di soxla tay nag ñu nek fi Ndiassane gamu Ndiassane plus précisément buntu kër euh, Mambou Junior dañuy daal di ànd ak di dem xol ambiance bi ci biir kër gi xol animateur yi nak xam naa département bi yépp ñu ngi fi ñu daal di xool waxtaan ak ñom xool nan la gàmm gi di dundee ay ca leen topp leen ñu dem mbokki internet bi comme niñ leen ko waxee sànq ci bunt bi dañuy daal dugg si biir kër gi waxtaan ak mbokki Mame bu Junior maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay sama doom jox ma tur bi ak sant bi Maguette Faye yaayu mam bu Diop Maguette Faye yaayu mam bu Diop waaw lan nga ñu mën a wax ci Mame bu Diop wala ñoo ñëw ci gàmm gi xanaa sama doom ci kontaan ci moom rek bëgg ñaan yàlla rek yàlla na dund ba teral ndeyam ndax lool rek a ko tax a jóg am na jom am na ngor bëgg na ay mbokkam te rek yàlla dalay jàppale dañuy ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla dimbal lépp lu muy mébét ci waa këram ak ndeyam mu def ko. amiin amiin ñaan yi am na solo te buñ ne diw baax na nañ laajte ba xam mbokk yee ko wax euh, lan mooy comportement bu Diop tey jii nii ba ñu bëggoon a wax Mame Diop moom mooy kat lan nga ñuy wax ci moom. xanaa nekk nit ku baax ku yaatu ku yaatale ku bëgg famille ku nangoo liggéey nag am jom loolu de laa gis. Ah, bu ñu jógee ci Mame Diop parce que li ñu war a wax ci moom bari na loolu waaye dañ lay daal di laaj rek ci gàmm gi ambiance gàmm gi nan la demee. xanaa neex rek sama taaw bi Bécaye mbaay taaw bu gàlliwul bi daa defar gàmm gi ba mu baax mooy magu bu Diop jiitu nag te yàqul kër gi te saarewul kër gi nekk ci gën ci suñu famille dañuy wax docteur ci seen famille Mame Bécaye mooy docteur ci seen famille jiitu jiital ñëpp yaatal ñëpp ak maam sanu mbaay kër gi motax na gamo gi neex guddi gi neex ñu bëgg wacc kër gi rek su seen papa juga duñu sans suñ togaay ndax nak nim nim fi bàyyee won rek non lañ defaree ba kon yalla na yalla motal ci barke amin amin amin amin euh, est ce que gàmm gi ni par rapport ak yi ngeen daan fi ni ban mo daq xana bi yo lo fekkee at bi ba at bi del siwaat boobooy daq gis nga ni fimni ni dañu nii defar ba mu baax nañu ba suñu boisson def suñu furbi tubaarkàlla bu ngone dañuy suñuy reer defar rek ba mu baax guddi yonent bi lañ nekk lu ci waay def gën mu mu gën loolu rek lañ fi nekk. ok guddi bi lañ nekk lu ñu waay def lu ci waay def rek day daal di neex kon nañu daal lay bàyyi nga daal joxe sa kàddu gu mujj daal di tàggatoo ak internet bu étoile TV. laa jërëjëf rek laa leen di wax ci sama doom yi maa ngi ñaan ci barke yonent bi yàlla na yàlla jàppale leen. yàlla leeral seen yoon lépp lu ñu mébét seeni waajur yàlla def ko ñuy ñaan yàlla ba déwén ak jàmm ngeen fekkaat ñu fi ci jàmm rek ñu defar ba mu baax. amiin amiin yàlla nañ ko fekkee ay déwén déwén xam naa dañuy daal di dem xooli keneen rek beneen invité. mbokki internet di comme niñ ko tàmm di def rek ñu dalalaat suñu beneen invité waaye kii nag dama naan du invité ndaxte. Tiwaawan ñëpp xam nañ ko jeunesse bi Tiwaawan ñëpp référence la ci moom mu nekk di jëzan mu sell mi dañ koy daal di jox nuyoo rek euh, mu daal di nuyu moom tamit mbokki internet maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay di nuyu itam mbokk internet du ñu suivre di sant yàlla bu baax baax di ndokkeel tamit képp koo xamante ni nga. parce que guddi gi da di guddi goo xam dañu suñu biir ñun guddi Muhammad la te ki tax nga am foo toll war nga di ko di ko di ko tiitaroo kon ñu ngi di allah. macha allah ku tax nga am foo toll da nga kaa war ndax naan euh, ku la lebal bor fay. loo am dugal ca mu xam ne dañoo lebal bor boo xam ne mënuñu koo fay kon lu ñu am rek dañ ciy daal di def léegi Assane nga yow lan moo nekkoon sa teewaay fii ci bés bi. waaw teewaay bi wax naa ko sama biir wax dafa nekk guddi goo xamante ni lu ci waaye man da koy def damay faral di wax ci sama intervention wala à rajo may wax ni bu bu bu weer yu jotee lu waay am na ko génn def bu dee yëre bu rafet génn ko sol. bu dee ay dàll yu rafet jënd ko bu dee darab bu rafet lal ko sala bu dee parfum bu rafet jël ko lépp ñu màggal guddik Seydunaa Muhammad waaye tamit occasion la ñun julliti ñu daje suñu biir daal di def li nga xamante ni mooy retrouvaille toogaat xoolaat suñu biir gën a nàmm suñu cofeel ci Seydunaa Muhammad waaye fii tey dañu fi ñëw fekk si suñu animateur koo xam ne suñu grand la suñu lépp la dañu gide ci lu bari démb rek ñu ngi fi woon ak moom ci gàmm gu mag goo xamante ni Njaasaan gépp teew na fi donc doon loo xamante ni tey lépp lu ñuy def rek Seydouna Mouhamed moo tax waaye nag di dalal tey euh, DJ Mbaye Junior bi nga xam di këram lañ nekk depuis sa matin ba léegi benn yeeg yëpp macha allah muy wane rek cofeelam ci Seydouna Mouhamed ndax nit moom boo jëlee sa depp xaalis ak nu mu mënti toll di ko dépensé ci Seydouna Mouhamed di ko dépensé ci yoonu yàlla di ko jox ñoo xamante ni tam loolu moo leen yëkkati xel day dal en tout ñun animateurs yëpp bég nañu képp kuy communicateur tey daje fi bég nañu waaye lépp rek. Seydouna Mouhamed la moo ñu fi boole bu guddee itam ñu tàntal Seydouna Mouhamed rek gën a gën a jaajaa suñu bopp ñaan yàlla mu def ñu dëgg-dëgg soppe Seydouna Mouhamed. mu nekk acte bu rafet ndax animateur yëpp dañooy daal di ñëw wéy ji ki nga xam ne mooy membre bu membre junior lan nga mën a mën a wax si groupe bi ngeen xam ne moom ngeen def. waaw bu xam nga li gën a am solo rek li gàtt li pour gàttal rek ndax fi nga war a dem bari na li gën a am solo rek mooy booloo surtout bu nit bu ñu bokkee loo xam ne mënuñu koo séddoo dañuy fexe ba ku nekk la nga ci am nga nga jël ko mais tey ànd bu rafet la muy animateurs yi nekk Dabakh muy animateurs yi nekk Alburax muy animateurs yi nekk feneen Mourchid ñi nekk euh, Étoile TV ñi nekk ci yeneen chaînes yëpp tey ñu ngi nekk ci jàmm ak salaam di àndandoo guddeeg bëccëg lépp nag lu jëmale kanam li nga xamante ni moo di moo di paysage médiatique bi

daal di gën a dëggal suñu cofeel di ñaan yàlla aussi tamit étoile euh, na jëm kanam man di jësar moom dama koy suivre samay samay gars yi donc yàlla na yàlla def étoile la ñuy wax étoile bi di briller en permanence ci barke rasulullahi bi nga xam ne mooy borom guddi gi. Eh, amin amin xanaa ñu bàyyi la rek euh, nga daal di jox sa kàddu gu mujj daal di tàggatoo daal di dem. étoile ci kaw ci kanam ci lu baax. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup c'était que Mame Mbaye Junior mu nek animateur ci département de tiwao nek radio bi nga xam modi alburak. di buñ ko dalalé dañ koy bàyyi bu naa di nuyoo ak internet bu Étoile TV ma ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna ci di la siyaare bu baax. jox ma tour bi. Moussa Mbaye la. Moussa Mbaye waaw. Moussa Mbaye yow lo bok ak Bou Junior. waaw Bou Junior nak mom sama rak la ño bokk bàyyi ba paré muy sama dom tek ci ma ngi mom li nu bokk lepp mom bu ma fi toogee di la ko faram-fàcceel ba suba du jeex waaw ndax day kenn ci man waaw ah, maam bu sama maam bu la waaw ah, amaana ni am na ci lu bari loo xam ne bu ma ko waxee euh, ñi koy dégg dinañ xam ne maam bu sama maam bu la bi muy ñëw ci man di vacances dama ko daan uuf di ko yóbbu Dakar kon kooku sama maam bu la sa maam bu la mais xam naa ne buñ fi naree nekk di wax ci ak mbaaxam fi la ñuy yendu fi la ñuy fanaan tamit waaye tamit nga wax ñu tuuti rek ci li nga xam ci moom yaram ak euh, comportement am ci biir kër gi. Ah, maanaam euh, xam nga dafa am loo xamante ni dañ koy woowee ak Baye Fall muy ñun ñi nga xam ne ñooy waa Kër Sëñ Touba maa ngi jéggalu nag bu baax ndax dama waroon a sant yàlla julli ci yonent bi sant sama sëriñ muy sëriñ Abdou Karim Mbacke Fallilu li nga xam ne moom laa yaakaar euh, te jikkoy Baye Fall li ñuy wax dëgg dëgg Baye Fall dama koo gis ci jëmmam ji ba jeex tàkk muy maam bu te maanaam Baye Fall bu newee ci yow dëgg dëgg Baye mooy yar ak teggin nit ku baax la ku rus doomu aadama la ku dal la Euh, alalam duko bolek booleeg doomu adama nit ku xam ay kilifam la man mën naa ne am lu ci bëri mënu ma wax ci mom ndax ma ngi mom dañ daan dundandoo bokk ben nek diko fanan Dakar bari na ci lo xamanteni ñu ci bëri dañ ne moy sama féete motax ba maam buñ ma laajee ci maam bu pour ma wax ci mom day diis waye nak dina jéem pour xamal leen ndax dañ naan euh, buñ nee diw baax na dañ naan ndax mbokk ya ko wax man dey Moussa Mbaye man mi nga xamni man xamna ma fréquenter ah bari na de sama doom la nit ku gore la ku dëggu ku dal ku am sutura te mooy doomu adama sutura mooy lépp surtout ci jamonoy tey jii. ñun loolu mën nañ koo seede ñun ñi nga xam ne moom la ñu bokkal liggéey bi mën nañoo seede loolu noonu. ndeysaan dëgg la dëgg la yéen ngeen nekk yu ñu ñu baax euh, bu bu lépp jàllee ñu leen di ñaanal muy waa alburaax la euh, suñu borom kawel leen ci barkeb borom gàmmu gi ñu ngi koy ñaan. ndax mom sunu dread la te fu mu nek dañuy bëgg ñoñu raw raw la wax de waxuma lay jël peeg yoy de raw te da ngeen di raw barke borom jaareem sunu serigne mo naan bu ngeen di waxantu may defantu ñu ngi koy ñaan ci barke borom gamu gi yalla na ngeen am ay tawféex am ay télé télé télé lepp sawan ma ngi leen koy ñaanal momit mom télé bopam nak waaw mom waaw bu ngeen rawé mom da wara raw raw ah. <laughs> waaw waaw kura jëmele sa kanam mu dël di waaw te xam nga yaa ma gën a xam. Euh, kon baax na xanaa ñoo génn tuuti ci maam bu rek daal di dugg si gàmm gi nan nga gisee gàmm gi ambiance bi. mbégte mbégte ndax xam nga mbégte mi nga xamante ni mooy euh, ñun ay alalu sëriñ Touba lañ Serigne moom ñu mais fii suñu ëttub baay la muy Ndiassane kii euh, te nit ku nekk boo demee sa ëttub baay sa feef di nga bég du dëgg rawatina nga ñëw li la Serigne bi jàngal nga ñëw di ko tarit sa ëttub fier neex boobu loolu noonu ñun mënuñu koo fay sëriñ gàmmu gi nag ah sunub sëriñ dafa wax Seydina Mohamed lu ko kenn dootul wax moo tax ñun mënuñoo def lu dul fonk yonent bi ndax amuñu kudul moom moo gën ñëpp ndax koo xamante ni dañ ne suñ borom moo ko njëkk a tagg lu mu ko taggee ci ñu ne jikko da ngaa ñëw nag kër ngéwél ma wax la yàllaa gën a doon ñëpp géwél yow mbaa xam nga loolu ku moom ku moom taggaate du géwél waye legui yalla ñëk tag yonent bi ana kon mom du géwél ah wa yalla gëna doon ñëpp géwél nga ñëw biir kër géwél nak barki mam Seera kën du nabi moo tax ñun ñëpp gis nga ni ñuy béllee ah, xoolal waa kër say wa gis na lool non la démé rek mais lool yëpp nak bu jallé ñu leen di santat barki mam Seera Fall di leen wax ni bég nañ ci gamu waaw bég nañ bu baaxa baax bég nañ ba bëgg yam dag ma waron di wax nak del tourner ci écran bi yeen saay parce que limay wax yëpp ndaw ci lay xol mais barki mam sey rafal contane non suñu xol sedd na trop ci gamu waaw yalla na len yalla defal jam, defal len tawfiq waaw bëgg na léegi léegi gan est-ce que niñ daan ñëwee non lañu ñuy mais ren ndax ren dafa doublé wala dafa gëna wañé waaw man nak kulu haqq wala kana mu gëj fi ndax ma ngi won ci ay mission sëriñ bi gam mo ngi ni ñëw ma ngi ñëwaat tey kon mënumaa am repère bob ndax juroomi gam bu la rawé ci ginnaw mëno xam ñi ak ñi ñëw tay mais dal ñu koy dundu dal waaw kon merci beaucoup ñu daal lay bàyyi rek nga daal di dem ba beneen yoon alhamdulilah kontaan na eh, merci beaucoup maa la gën a kontaan dañuy wéyal suñu ay laaj ñu daal taxaw fi ak suñu jigéen ñu ñaawul ji ak suñu góor bi xam naa damay njëkkee ci jigéen ndax tubaab dañuy lay daam d' abord ngi lay nuyu maa ngi lay fay jox ma tur beeg sant bi Yacine Mbaye ñu nekk fii Ndiassane ci kër Mambou Junior lan nga bokk ak moom Mambou sama rakku jëkkër la muy xale bu yar bu baax mooy man moom sama gaayin la léegi xam naa ni mu dama gis ni manoo wax yaa ngi mën a yam léegi lan nga gis ci gàmm gi. gàmm gi moom macha allah neex na neex na moom. par rapport ak yeneen année yi ban ban moo la dàq. gàmm gi yàlla moom année bu ñëw gën a neex. gan yi tamit ni daan ñëwee noonu la ñuy ñëwee ba tey mais wàññeeku na wala dafa yokk. ah macha allah ren moom dafa yokk moom. yokk na bu baax baax. Abdoulaye sant nag sama borom kër di mag Imam bu job, nga xam ne lii lépp la di ñaanal fan eh, ak kaw. dañ lay bàyyi nga daal dem rek ndax gis nañ paaka bi xam ni liggéey bi da laa xaw ak baat ak baat tamit baat bi dee. d'accord ñu jaajëfal la bu baax daal di ci suñu daal koy nuyu tamit. ngi fay bu baax allah. la internet yi lay seetaan à travers Étoile TV. d'accord ngi nuyu internet yëpp euh, man la Ali Mbaye.

pour la jeunesse de Ndiassane ñu kontaan trop vraiment ci ni ngeen ko taxawoo kanam def ci jërëjëf. Ah, merci beaucoup yow tamit ñu daal lay laaj rek gàmm gi nan nga ko gisee ak noo ko dundee. waaw waaw alhamdulilah macha allah gàmm gi moom vraiment taxaw nañ ci bu baax daal nan gan yi gën nañ jox gan yi seen néeg dëkk yi ban nañ leen daal. waaw loolu la merci beaucoup. Ah, ku ni gàmm xam ni coono la waaye tamit coono bànneex la. waaw waaw coono vraiment vraiment coono bànneex la. ndax ah. euh, ndax vraiment boo seetloo coono la sant sant sant yàlla bu baax tamit. ndax euh, lii la am quoi événement la tey annuel lañ pour Ndiassane ñun bu ñëwee dañ ci sant yàlla lu ci ngir borom dëkk bi ci Cheikh Bou Kounta borom Ndiassane loolu si la jërëjëf. léegi lan nga ñu mën a wax ci gàmmu Ndiassane bi. waa gàmmu Ndiassane moom eh, dinaa si sawar parce que ñun euh, yàgg nañ coo teewee bi ñu xale ba léegi vraiment comme ni nga teewee ak mag ba ñu toll nii mu nekk événement bu rëy ci ñun bu fort nag ci ñun mu ko tiitroo ndax comme nu ko dëkk bi defee ñu doon loolu koy taxawee bi Ndiassane

acca assalamualaikum sista Asi ama lay nuyu bu baax baax di kontaan ci yow di kontaan tey acca ñëw bi ngeen ñëw di kontaan ci ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm merci beaucoup dégg ko mu may jaay ji koy animateur salaamaaleykum loolu amu fi tey ñu ngi ci gàmmu Ndiassane acca <laughs> bu loolu jàllee dañ lay daal laaj sa tour waaw man nak uh, Asi man mam bu mbaay lañ laa ma tudd nak uh, borom Ndiassane nga xamante ni tey njaasaan gi ñu nekk ah eh, ki nga xamante ni moo ko sant di Cheikh Abi Mouhamed Kunta ah di suñu wasila di suñu lépp acca ma tudd noonu nag waaye nag eh, nit ñi gën ma xam ci Dj Mbaye Junior ndax ci métier bi may yëngu muy animation bi tax na daanako mën naa wax ni tur bi sax tur animation bi sax moo gën a siiw waaye nag loolu nag lu yàlla di def la eh, te mënuñu si dara loolu la waral mais Mame Bou Mbaye bi nag mooy tur dëgg bi quoi mam bu bay ñu gis dem nga def fi gam gu mak gam gogu non kañ nga ko commencé amal waaw euh question mom dama ci sawar lol gam gi nak euh biñ ko dalé def yag na waaw ah, ren moy 5e édition waaw ah, ñu koy def sak at ñu koy def danaka biñ koy dogo def doyon na war trop danaka ke jëlon dañu jëlon quelques sièges rek at koy tek bobu mën na ni sa est ce dugaguñ ci métier mi jël quelques sièges tek aca woo nit ñi daanaka kër gi fees dell mujj gi nag ba affaire yi nag ñun moomatuñ ko ah boo ko bu gàmm di jub si nit ñi ñoo lay woo naan la kañ la jàng yi ah dem nag ba nga xamante ne ñu nekkatul suñu yëf waaye yëfi senegal la yëf yëfu ah, jullit yëpp la ndax ñëpp ñoo fiy daje ah yow gis nga ni mu demee démb murit yaa ngi fi ah xaadir yi laay ni ñasee ni ñëpp tiijaan yi ñëpp nag ñëw ngir suñu cofeel mu nek lo xamanteni dal daal dañ ciy kontaan moo tax gàmm gi daal bii mooy édition Asi ñu ñu di def di ñaan yalla mu gën di continuer. inshallah inshallah lan nga ñu mëna wax si gamu ndiasane gi. waw gamu ndiasane gi day lima ci mëna wax bari na wul ndax gàmmu Ndiassane eh, wax deug yalla eh, daanaka fi koy japp moy fi may ñëkke moy bu gamu wa Tiwaawan bu ñu gàmmoo ba pare ndiasane ni ñom dañuy ngenté ci Eh, wax dëgg yàlla nag eh, ñu nekk ci dëkk boo xamante ni borom Njaasaan moo ko sanc eh, yonent bi di maamam waaye loolu rek doyul waaye mu jël lépp ah jëndee ko taalibe ak ah, di di roy ki nga xamante ni mooy maamam wax dëgg sa yàlla te moom dara ñoru ko woon lu dul lu dul jaamu yàlla ak bëgg yonent bi te loolu moo tax nag tey lii ñun ñu nekk ci moo tax bu gàmmu Njaasaan jotee nga fi gis ku nekk ah ñëpp ñëw wax dëgg yàlla bernde yi nekk fi ah ñu ñu ñu teral gan yi ah nit ñi nit ñi waxtaan ndax loolu rek mooy jàmm te loolu rek loolu rek loolu rek la ñuy ñaan wax dëgg yàlla ñu daanaka mooy li ma wax ñëpp teew nañ fi moo tax bu gàmm gi jotee daal ñun du ñu amati benn yitte ndax euh, damay faral di wax ni nit ku nekk nit ku nekk fi nga labee moo xóot ci yow ñun njaasaan lañu ñu labee ndax ku nekk ak ki nga gëm ñii murit lañu gëm moo leen di yóbbu ci yonent bi ñii tiijaan mais ñun borom Ndiassane ñun ay xaadir lañ di taalibe borom Ndiassane te loolu nag wax dëgg yàlla euh, di nekk loo xam te ne la si ñun ñu nekk taalibe borom Ndiassane wax dëgg yàlla borom Ndiassane amul woon dara lu ko loo xamante ni euh, kii na ko lu dul gàmm gi mu bëggoon gàmm gi lool muy gàmmu Ndiassane gii nga xamante ni ah ñu koy defal nag maamam wax dëgg yàlla gis nga ko nit ñu fi teew ñun gis nañ ni gamu gi neex na lool ñu gis fi tamit teewaayu animateur département bu Tivaouane bi yépp mm. est ce que japp nga ni wan nga leen lo tax lu tax euh, ñom ñu bayyi seen ay nelaw dem ci guddi mm. tay tamit ñu ñëwaat daal di yendu ak yow fi ci Ndiassane dedet dama naan dedet danaka wanuma leen lu tax war nañ fe ñew ndax suñu jëmmuy xébu yi ak ñun nit ñu di yuñ doon danaka ñom ñoo baax ñom ñoo baax ñëw fi tay sagal ñu dañ ñoo sagal ci wax deug yalla may xewle ah ku ne gis fi animateurs yi fees fi dell artistes yi animateurs yi démb lañ ñëw commencé ñëw ci programme bi tey tamit ñu ñëw yendoo ak man dañoo baax rek ndax bu leen neexoon ñu ne nag ñoo bokk métier mi ah waaye nag euh, di dund ay wàllu concurrence mais defuñu ko dañoo bokk ndey ak baay ah di di demalante ah, di di di ñëwalante te ku ci nekk la la nga mën euh, sa waay nangul la ko nag nangul la ko ñu nekk ay nit ñu baax duma lim juum ah DJ Zan ah DJ Labaro DJ John Sina ah DJ Lay Ahmed Lawbe ak yow même Sista Asi yow mii kenn gënu la DJ Maysa ñoom ñëpp ñu ah, ñuy nekk nit ñu baax daanaka ku lim juum ñoom ñëpp daanaka bi bi nga xamante ni gàmmu Ndiassane mi ngi jub si amatuñ benn yitte amatuñ benn yitte bu sama gàmm gi di ñëw publicité yi noonu lañ ko jàppee jàppee ko comme seen yëf ah mu nekk loo xamante ni daal yëpp loolu xanaa dañ lay bàyyi rek euh, nga daal di tàggatu wax sa kàddu gu mudd daal ngay nga daal di euh, remercier ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a waaw euh, jërëjëf soxna Asi ah may kontaan bu baax a baax waaw kàddu yi moom mooy li nga kàddu cant ngërëm lay doon waaye nag dama ko si dama damay dama siy jiital ah waa Étoile TV ah, waa këy. ñu nekk nit ñoo xamante ni ay nit ñu baax lañ euh, nit ñu jàmbaare waaye nag euh, di nekk nit ñoo xamante ni euh, taxaw nañ ci samay mbir taxaw bi mooy damay def événement comme démb ñu ñëw ah jàpp ci bés bi daanaka couvrir bés bi ci ñoo xamante ni laajoo laaj ñu la dërëm ñoo xamante ni bu fekkoon xaalis la laaj duñ fi ñëw ndax am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo ñu ëpp daraja ñu ngi ci biir dëkk bi Ah, wax dëgg yàlla ma leen di ñaanal bu baax a baax di leen jaajëfal ah di kontaan ci ñoom euh, di leen ñaanal nag seen euh, site internet bi euh, yàlla na dem ba nekk tele ah. waaw nekk ci tele yi gën a rëy ci Sénégal di leen ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla def waaye nag di jiital nag ci ngërëm gi sama famille ndax li Olof Njaay di wax peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya waaw. moy limay wax di contane bu baax baax sama wa famille ah ñu nekk nak nit ñu baax nit ño xamanteni ni daal dañoo nekk ben di ñaanal suñu way jur wu goor wi nga xamanteni mo jitu yalla nako na ko ah yàlla xare ko aljana ah di ñaanal ñi fi nekk yalla yagal leen fi ku ci melni sama yaay ak sama papa yu ndaw yi fi ne ah yalla yagal leen fi ku ci melni papa Ahmed ah ak sama bàjjen yalla bayi leen fi ak sama magi, ah sam suñu taw bekay Hmm, ak suñ taaw bu jigéen maam sunu ak ñëpp ma kenn waaye nag di kontaan bu baax a baax ah ci ñi nga xamante ne mooy samay ami den d'enfance ñoom Pape Sidi Sidi Mbaye Amdi Fallou ah Maxtaar bàyyuma kenn ñu nekk samay waaye nag ñoo xamante ni lépp ci addina ñoo ko defandoo waaw defandoo nañ lépp defandoo nañ lépp ñu nekkoon nit ñoo xamante ni waaw dañoo dañoo dañoo xaw a doy waar xaw a waar mais instant bi nga léegi màgg nañ bàyyi nañ yu <laughs> ma leen di kontaanee bu baax a baax hmm? ñu nekk nit ñu baax waaye di kontaan bu baax a baax ci ki nga xamante ni mooy baay bu Diop nga xam ne at day ñëw di ànd ak man ah euh, programme bi may def ah, di fi di fi tagg yonent bi nga xamante ni du ma laaj dërëm du dara day ñëw rek def ko moom sama waay di ko ñaanal jàmm di ñaan soraanoom bi mu nga xam ne moom la dë dëgmal yàlla defal ko ci ndam euh, waaye di jaajëfal bu baax a baax animateurs yi nga xamante ni ak animatrices yi nga xamante ni bàyyi nañ seeni soxla démb ba léegi ñu nekk ak feek man ñoom ñëpp DJ Maïsa Laboro DJ Johnsina DJ Zan Ahmed Lawbe yow si sa aasi ah DJ Laay dama koy fàtte sama waa ji euh, ñoom ñëpp di kontaan ci ñoom bu baax a baax dañuy bàyyi seen yëpp ah di ànd ak man di nekk ak man ndax ñoom ñooy sama deuxième famille ñoom laay nekkal lu bari wax dëgg yàlla ñu nekk ay nit ñu baax ñoo xamante ni daal ñoom ñëpp mën li ñuy def waaye ku nekk nangul sa morom ku nekk nangul sa morom yàlla na leen yàlla defal jàmm di ñaan fi ñuy dégg gars yàlla nañ leen fa dégg ndax ay borom baax lañ te seeni seeni xol rafet te métier mi ñu ne euh, dafa am yoo xamante ni euh, gis nga talent baax na talent moom lu ko waay jëndee baax na waaye gis nga xol bu rafet moo ëpp moo ëpp lépp solo nit dangay dangay am xol bu rafet yéen a ñëpp jàmm boo ko defee ak gëm li nga nekk man man ni ma gëmee li ma nekk dafa ëpp gis nga nit li nga nek même bu fekke sacc la nga gëm ko dafa lay jariñ waaw ba paré nga yéene ñëpp jamm lu way mën nga yéene ko ko lu way am nga yéene ko boko défé rek di nga am jamm boko défé na ah, euh, fi nit ñi ag. dang fay ag té wax dëgg lool rek laa gis ci gaay yi ah, di la di la di la di di la jaajëfal yow mom du wax ci yow yow batante nga di nek jigen jo xamanteni wa ku mën li ngay def nga nek ci nak wax dëgg yalla ah di bay sawar lool ci ci métier mi di nga xamanteni métier mi nak jigéen nekk ci yombul waaye yaa ngi ci am boole ci fulla lool nag mën ko nag yàlla na la yàlla defal jàmm di kontaan ci ñëpp ah ci ñi nga xamante ni ñëw nañ fi démb nag ku ci mel ni soxna Maymuna Ba ku ci mel ni soxna Kiya Kunta ah soxna euh, soxna Kiya Kunta waa kay aja Anta ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Omar Kunta ñëw na fi waa Kër Serigne Jamono Weuza Création ñoom ñëpp ñëw nañ fi waaye nag di beral nuyoo sama jigéen ju baax sama sama xarit misal Salma Jaxate di sama xarit di sama jigen nit ku bax diko ñaanal yalla nako yalla defal jam yalla nako yalla may borom keur bu bax bi may waj gi wo euh envoyer ma xaliss bu bari ni ma préparer ci gàmm gi yalla nako yalla defal jam yalla nako yalla defal sutura ci barke yonent bi lol na wah contane na wax mawah yàlla mënuma wax lepp ndax sama xol dafa sedd ndax gis nga keur gi ni mu deme ah nit ñi ñew japp ci ah gars yi gis nga bernde yi fi ne daanaka xam nga man manuma ko <laughs> waaye nit ñee ko def ah ku nekk ñëw jàpp ñuy jàpp li jàpp mu baax jàppal ma jàpp <laughs> di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na ñëpp am jàmm di ñaanal daal li nga xam te moom lañ def ci guddi yonent bi ah yàlla nañu ko yàlla fay ci barke yonent bi wax dëgg yonent moom ku ko lebal ker moom mu fay la guddi dëgg yàlla waaw di di di di ñaan daal yàlla nañu yàlla yokk suñu cofeel ci yonent bi yàlla na yokk suñu cofeel ci yonent bi yàlla na yox bu fekkee dafa am dara lu ñu lu ñu lu lu lu nar a dog suñu cofeel ak yonent bi loolu yàlla nañ ko bu fekkee mécc mii ñu ne sax mécc mi ñu ne bu fekkee dafa nar a dog tuuti ak suñu toq cofeel ci yonent bi yàlla yàlla nañ ko arrêté tey ci barke yonent bi yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm kontaan naa lool kontaan naa. jaajëfal ko bu baax a baax kàddu yi rafet na ay ca fii la ñuy jaaree nag daal di tàggatoo ak yéen daal leen di jox dig daje ba beneen yoon rek